lu la neex def lu la neex wax fu la neex dugg faw loola du la may dara ci lu baax ndax képp koo xam ne yor nga noon def nga noona saa borom dana la woon gannaaw Rasulullah woon la gannaaw te ñoom ñaar ñooñu fu ñu wonee gannaaw Sëñ Tuubaa wone fa gannaawam اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم